Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Fuck you. Hey, summer soldier brought me fucks a shorty. Hey, love you. Love you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, gotta find the people who are going. Yo, yo.

nee na sooy Noël jaramatulaa boobu toll bi si kaw dund rek ay tax ma yegg suuf teg sa gémmiñ ak ay gis nga fermé loolu nga daanu ba wut ay soutien ay dini ay dini loxo si poos su bëri mu ma caa di bëri jaba yëkkati gerte bi ci kaw bu sara bandi buuga ay loolu Don't you Come on. invalide ngay tuumaal licite mënatoo teg lu gën illicite jooba yaay miskit sa cachet sa xaalisu miskit doo def doo fi bi seen baat yi yow laay dundee seen fit ay baat leen ba si looñu kasakaan ne baat si li ko daa ko daa li bi yu ne doo ko laal yàlla yi moo nekk duma baat dawaru muuf muuf lekk sa xaram mu daw ba nga lekkam ci dara bu ñëw bu ñëw looñu looñu looñu Welcome to the Fuck you. Fuck some pretty things. Some fucking party for some sweaty girl. Man, learn your Fly, make it, they could walk on your face. Fly, make it, they could walk on your face. music. Yeah. Yeah. Hey. Roll over my bosses. Don't play. That's me, Jack, me, Jack. Don't. Yeah, nigga, when you crash. Hey. Trap scene, all kilo. Hey. Would you want to see my guy? Rock, rock, I'm a shooter. Hey. Money up in my hands. I'm on my highest for real, bitch. Gatom dele, gatom dele Aturelme dumo gjyksi felpele Për avare zis pari shokë Sa me posh një gërë për senjari qoke Tra me gjyko gjep nigë Që peru feri la sesare Shpina monte konfirma në lëna E kuda marko lejde monte na melu bedne mese ne merale góor maa ngi studio bu toog lu tase rap lu yàgg su dee ma lay sóoraale góor musique moo nekk ñëpp ci seen bopp compère fu ma leen di ñëw di leen fàtte góor dañu toog di xaar nga génn prof góor ran chi fi ngay def dañ ko dégg rek musu ko gis comme ñoo rek loppi dóor arios arios dégg Léegi yaa ngi ñaata peer sama njëgu dara ma sa pees digal sagat waxoo pees wane yàlla am na pees gëmul la woon ba may commencé def lu jàpp nga jàpp yaa ngi ma ngeen di clash hey traffic on kilo hey donc buy dugal du sama gaay yaa am I'm on my high school waa lu school yana English oja se seetaane seen xol ñu ne man su ma nekkoon yéen dafay ba sama bopp sama yére jarul ñu day rafet la fu ñu defee seen bis ku mel ni aw fa dafa raat dina ñëw mu yóbbaale si tubaab mel ni bés bu ñu kase lu dëkku ngay mujjee wax si sa life fa nga feebar pour ak seen métier di seen ko sa gaay woo di sama xaalis ñu daal respect papa ma jiitu ma sama respect ay boy juune laa ko segal ak paay màgget ak ñu juddu am rah rah amul suure ñu may ñaanal ala lu depuis temps xale la botum bukki di ko doomi seen solo lu eh c'est donc comment eh

merci beaucoup. nga vérifier sama téléphone. comme bépp góor. kon fa ma nelaw mais tey gis naa si yow lu mu metti. ci la neex la defal comme avant nga tëndu ma sourire bu nice. sumi samay dal laaj ma lu ma def. wasal ma samay temps. bu mu la bëgg loon du ñu sëyee. umlo bogu londu nyuse ne mooy saaga si naaj bi mu yeeroon bug mën naa lu ma neex la waaw waaw ndaxte lu ñu def mo daf ko jox benn li mu leen rocc xel day metti seen xol sum balax benn trace sol classe ba da police saga teg mooy fi fala bi ndaale son flip like a bu suuf sa gel ma la pepe ba doo doomu doo gis sa yaay bu sa ñamu diw sa ba pël amul amul am yow te ñaay génn sama baax li jëndal sa

star la am soo denc deux ans mu gën tàngal rëpp musique ba fee am mayam ñeex yokk cere doon neex daw xus bus di dem Adriano su produit sa yaay bu sañoon mu gis sama pose bi Nissa Nissa Nissa Nissa Observe nice, nice, yeah, observe nice, nice, nice, so glass nice, observe nice, wow, we sex it, you content, okay, you content, wow, y'all, that's the boss! Sama gars, maximum de bruit pour Bip Bundu Kiss.